aussi vraiment il faut qu'on cesse de nous prendre pour des enfants quoi xam nga parce que par le par par le sens je crois que Dakar gi ñëpp xam nañ ko. mais est-ce que gëm nga Serigne ah. Saliou ne que euh, justement ci bir euh, direction euh, des des des élections foofu meun nañ modifier quand même liste. jàmbur xam nga tax la non bàyyi ma wax la. Hmm. parce que lu tax. Hmm. man meun na gëm né fofu wax ma ne ko def mais meun na ko xamul tax. Hmm. parce que mais Benno en a bénéficié. la liste de Benno. Benno a déposé... dama wax loi loi rek la liste de Benno sur dire sur l'ensemble du territoire national dañ ko wara invalider. pourquoi. Ah. ils ont déposé plus plus que li ñu or ça a été le motif principal du rejet de la candidature de Maligako. Maligako. de a Gakou. la mhm. invalider candidature am a ma li ci conseil conseil constitutionnel wax. Mhm. mu considérant qu'il y a lieu de rappeler que l'âge malgache ayant présenté une liste mhm. de 67 842 parrains au moment de la déclaration de candidature, et j'insiste, déclaration de candidature, mhm. comme cela a été dans la décision numéro 2 2019, a dépassé le maximum de parrainage autorisé, mhm. autorisé par la loi lors du dépôt. D'accord. On soit 66 820 électeurs. Que ce dépassement suffit pour rendre sa candidature irrecevable conseil constitutionnel moi wax lolo, mon considérant qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'âge Malik parce que dafa ce, mais aujourd'hui Benno oui Benno ils sont allés déposer c'est le nombre de parrain Ils mhm. ont déposé mhm en application de la disposition de l'article 149 du code électoral M. Benoît Sambou nous dépose en même temps une liste de 55 328 électeurs. Mm-hmm. Et j'insiste, 55 328 électeurs recueillis pour parrainer sa liste de candidatures aux élections législatives du 31 juillet 2022. Mm-hmm. Légué, nombre de candidats fournis 55 mhm. 327. Oui. Puis, il a déposé 328. D'accord. Ben Boufoundiar. Alors. Parce que Ben Boubou, moi, on l'a éliminé sur l'ensemble du territoire. Parce que aussi, il, les gens, ils ben ak ay non du lolu xam ben ak ñaar mhm. tay dañ na président de la république ñaar nga 18 ans non 35 ans 35 ans oui 35 ans au plus 75 ans mhm. bu Ben de fan manqué tu ne te présentes pas. Mais mais mais mais il y a eu ça, une Saliou, mais il y a eu eu d'une autre part l'arrêté euh, justement portant mise en place d'un dispositif de contrôle des listes de parrainage au ministère de l'Intérieur. À son article 6, ah. à son article 6 également, Euh, à l'entame euh, de chaque séance de contrôle, le président de la commission de réception présente à l'assistance l'enveloppe scellée contenant le support du fichier euh, électronique avant de l'ouvrir. Bon, ñu si les parrains euh, sont des électeurs identifiés dans le fichier général des électeurs. Cette opération est basée sur euh, une recherche euh, multicritères portant principalement sur les prénoms, noms, entre autres. Mais euh, nous ñëw le nombre global des parrains requis et le

arrêté bi moo fixé maximum bi ak minimum bi. mais kaay ma dëggal la Serigne Saliou léegi xaaral na fa may la nga ñëw. léegi. Mhm. conseil constitutionnel la mu wax ba éliminer Malick Gakou loolu ab arrêté mënul ñëw tey dindi ko parce que conseil constitutionnel dane ko danga nga dépasser le nombre de parrains requis et conformément à la loi mooy yow sa candidature dañ koy rejeter. conseil constitutionnel li mu wax loolu dara mënu ko dee. donc donc ça veut dire que l'arrêté bi ñu génnee pour ces élections ça ne sert absolument à rien arrêté bi arrêté. tamit non je demande c'est sincèrement waaw arrêté. arrêté mënul sut arrêté mënul wax lo xamné ne fay gëna a sut loi. mi ngi nii hiérarchie des normes moom laa la wax loolu mënul a nekk c'est-à-dire arrêté mënul dama ne arrêté. Mhm. même décret mo sut arrêté. moo sut arrêté décret ci bopam mo sut arrêté donc arrêté ministre bi.

mais mais Serigne yu sànq bi may wax du dégg ngeen ma ma ni leen ñun ba ñu yóbboo dañu yóbbu ay loo yóbbu ñu dugal ci clé bi ñun ñu ñu ñu ne ñun ñoom lu ñu liir manqué na dë ñu tolloole ko ba mu yegg ñun suñu gisee mu mu yem cinq mille trois cent vingt-sept loolu rek lañuy nangu ñoom. bu ñu dugalee clé bi. xaw ma seen machine yi ñu dindi ci deux wala loolu yëpp loolu yëpp ñoo ko ñoo ko tey pour tëbal ñu mais ñun comme dañu pare ñu wan leen ko kon xam nañ ñi mille cent vingt 5327 moo ci war a nekk nii plus ni moins pourquoi est-ce que pour deux laaj laaju ñu ñu génne waat ci 60 mille xaw ma 70 000 yu ñu yóbbaale waxuñu ñu dolli leen ci kon xam nañ ni dafa war a yem ci liñ ñu laaj ci base 55 327. yi la ñuy génne soi-disant doublon que personne ne peut vérifier ay xawma pour cause multiple. doublon interne doublon ma xamul ak yoyu noonu. ma bëgg waxat leneen ci affaire rouiller. man ci euh, euh professeur li nga wax moy su fekkee il euh, y a un complot wala dañuy xéxanté <laughs> ci ki té man mënuma gëm ni nit dina ne euh, je sais pas tu peux pas t'asseoir sur la mm. branche tu peux pas euh, la branche sur laquelle tu es tu assise mais est-ce que Bat ne dérange pas aussi mais mais mais mais ma mais affirmer aussi mais ma expliquer jour mais mais soit disant un document mais mais ko de mais dama ne sais pas Bokk mais ñoo document bi man mais document ban mais euh, mais Dakar publié quoi. ma xool j'ai regardé mané i ça me semble jógewul oui mais euh, ça a été publié sur le sur le sur la page Facebook de permettez-moi au début de Jotna liste bi ñan ñoo ko publier. c'est pas Jotna. kay qui a publié. Il y a quelqu'un qui l'a publié fu ma ko man man fi ma ko fi ko man. qui l'a publié mais c'est pas Jotna. kenn ku bokk kooku du vraiment du doon euh, Serigne Saliou kenn ku bokk man la gis mon publier je me suis même pas arrêtée parce que moi j'ai vu tout de suite que euh, ça ça n'a pas il y a trois tout de suite ça m'a frappé mais dama ni ah non, non, defati seen yii c'est du faux c'est du lowing seen yii ñoo ñuy def ci ci Il y a pour ko donc man lu ñu mënti def. du mais sëñ Saliou da nga war a da nga war a aussi éclairer la lanterne des Sénégalais. celui qui l'a publié. non il faut nga wax ko sëñ Saliou ah, celui qui a publié fan la ko jëlee. Sénégalais ma aw. ba pare ba pare ma bëgg. mais ba pare léegi Serigne Saliou pour ma pour ma pour ma yeggal yaa ah, bi may ñëw maa ngi koy wax. ma ne leen yéen DGE si prendre ñun PDS ba ñu ne dañuy wàññi suñu suñu liste dañu am doublon. DGE gis nga ko ñu ñu dem delo wa Pape Djibril Fall da nga leen gis ñu def communiqué. dégg nga leen ñu dindi ay bouga da nga leen gis ñu def de communiquer ñun dal ñun yeggaguñu sax suñu permanence DGE lancé communiquer le parti démocratique sénégalais pour dix 000 mille lan nga xamni donc amna na lu ñuy pare. ngi préparé opinion bi. légui man loolu non pour pour vous dire man leen yéen vous êtes si prompt à communiquer pourquoi depuis hier. Euh, la, rumeur enfle sur les, euh, sur les parrainages de Benno Bokuyaka et vous êtes silencieux te ñun ñoo leen tout à l'heure da nga da nga wax lu am solo. Euh, muy président muy président Abdou Diouf muy Kenen. je trouve que le Sénégal a une autorité qui est nous ñun de leen DGE daf ñu war a wax leeral ci affaire Benno Bokk Yaakaar nu mu yàkkamtee leeral pour yëfu opposition. wala pour wax. li moom war nañ ko leeral. war nañ ko leeral sénégalais yi leneen lu ñëwaat hiérarchie des normes nga wax. sànq bi may ñëw laa ko publier sama page Facebook. ma ni leen mais qui définit les modalités de vérification. y' a pas une loi qui permet. Ah, amul dara dañuy ñëw nga jox leen seen. y' a une commission y' a une commission de vérification. Sénat moo toog c'est la loi qui permet ça au ministère. voilà Sénat toog seen wet. Sénat ñoo koy visé ak le président de la commission. ñu dugal clé daal di ne cu cu cu kay ah. la contrôle juridique. des ci parrainage pourquoi ah, toute cette agitation. Oh, pourquoi. parce que l'information parce parce que su rek li man ma la ma conviction personnelle du lu a prouver analyse la rek il bloquer d'accord amone ben benn buñ ci bëggoon jaar parce que ça semblait trop truc pour ñom ñu génne ñaar ñëpp le Séné le Sénégalais aurait compris mais man ñi duma ma leen waatal kese par expérience Macky dañu yàgg ak mom di xeex ak mom 2009 ba 2016 chaque jour lu né pour man. Euh, sañ ko def. et donc man pour man moo dina wax en temps et lieu. justement euh, euh, pourquoi pourquoi pourquoi je veux juste souligner quoi qu'il arrive on est totalement solidaire mhm. de Yewwi liste pas liste on est ensemble on va se battre ensemble on va faire front ensemble ça c'est très clair et c'est les ordres du frère naturellement alors peut-être nous verrons ñu ngi xaar réaction au mandataire mandataire wu pour des pour pour pour nous pour à euh, la ñu par rapport à cette histoire Omar vous êtes dans une coalition dans une entente bizarre bizarre comment ça c'est de la bizarrerie c'est une entente yi ngeen non franchement c'est <laughs> une coalition ak qui ku ne mënoon nga dem élection Loi waaye am ñu nous ne nga am mais li ngeen def nii kenn comprendre ah,